الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنا بنين بكي لزيارة بباخ باخ تبارك الله نفاتلان تطيطم بو أمسلو خمنا بني وخ لي الله لتخي الله دين دينيت موي توم بي دي خمنا موي لامبو بي ليرال نيت fii ci àdduna ba mu xam fa muy teg tànkam waaye mooy leeral nit ki fële ca àllaaxira ba mu xam fa muy teg tànkam di loo xam ne alxuraan wax na ci ci aaya yu bari lu mat 437 aaya ñëw na di ko jàngale xadis yi ci ñëw bari na 90 10 98 ahadis ñëw nañ di ko jàngale asaar yi bari nañ ci 19 asaar ñëw nañ di ko jàngale muy lan gëm yàlla muy al iman di loo xam nag suñ ko waxee ñun ñaari yi am solo dañ koy woyefal boo ne nan waxtaanee gëm yàlla dañ naan ah ñun koy gëm nañ fekk diirit xam ne tem yu xaw a xóotu yeeg yu nangam ak yooyu la ñuy gën a farataal waaye yii nga xam ne yàlla du ñu ci may dara buñ ne dañu koy waxtaan day mel ni lu ñuy woyefal la te fekk moom la ñu war di waxtaanee li ñu war a waxtaanee muy gëm yàlla mooy làmp buy leeral nit ki ci àddunaam ndax lislaam la cay dugal nit ki mooy al imaanu mooy gëm yàlla loo mën a def ci àdduna lu mu baax baax su fekkee adhéré woo ci parti bi mooy amoo carte membre te am carte membre mooy nga am al imaan loo def du safe boo demee ci yàlla doo fekk dara waaye it àllaaxira làmp bi leeral nit mooy al imaan muy gëm yàlla ci lañuy ñuy jéggi jéggee siraat yow ma xëy am kenn ku ne sa doole ngëm moo lay jàllale am na ñoo xam ne seen ngëm day fort ba mel ni ab projecteur nga xam ne sax loolu la alxuraan doon nettali ba naan ñi nga xam ne dañ fay nekkoon sàgganee ngëm yàlla dañuy wax ñu farlu woon ci ngëm yàlla ni leen unzuruna naqtabis min nuurikum ay waaye yéen ñi doon farlu ci yàlla yéen ñi amoon ngëm bu dëgër la waaye xool leen ñu bu ngeen ñu xoolee ñu mën a niitu ci seen leeral ngëm yàlla gi ba mën a dox ndax foofu këriis lay def ki amoon ngëm bu foor rek mooy am lu mel ni projecteur nga xam ne day leer ba leer laal ñu ci yotam am ñoo xam ne ngëm yi yem la ñuy am poto lamp am ñoo xam ne seen ngëm gi day mel ni torsu xaw a yem am ñoo xam ne seen ngëm gi day mel ni làmp bu tolloog baaroom kenn ku ne ni sa ngëm fooree woon fii nga dundal ko mooy sa leer ëllëg yow ma xam bi ngay doxe jëm ca foofa moo tax tabaarakallaahu yàlla bind ñu ci ngëm yàlla ñun ñëpp a gëm yàlla lu coow li bari bari ba ci yéeféeri ci jamono alayhi salaatu salaam dañ daan xeex ak moom di ko weddi fu ñu toll di def ay conférence de presse bi yàq deram waaye yàlla nee na alayhi salaatu salaam liñ lay weddi weddi liñ may weddi weddi li ñuy bañ bañ boo leen laajoon ku leen bind ñu ne la yàllaa ñu bind nga xam ne bañ nañ yàlla sax weddi ko waaye ñoom xam nañ ne yàlla am na ndax moo leen bind wala in saaltahum man xalaqahum la yaqulunna allah soo newoon nit doy doy waar luñ bañ bañ lislaam nga ne ko ku bind asamaan danaa la yàlla ku bind ndax boo ko ne ku bind asamaan mu bëgg a wax diw danga ko naan waaw ba fi diw nekkagul fu asamaan nekkoon ku bind suuf muy am lu naka naka nga ne ko diw moomee ngay xalaat ba mu fi nekkagul ana lu fi indi suuf kon ñëpp maase nañ ci ne yàlla am na moo tax lislaam bi ñëwee alayhi salaam def na fukki at màkka li muy waxtaanee lépp di ci woo saxaaba yi mooy yàlla am na gëm leen ndax li ci laxasu dafa bari ndax boo xasee gëm ne yàlla am na ni ko fuqaaw yi jàngale ngëm ñett ko làmboo da ngay gëm ci sa xol bi bu wóor ne yàlla ko am la doo ci am sik sàkk bu àdduna sépp maasoon wedd ko du tee yow nga gëm ne loola am na beneen bi topp da nga koy wax ci sa làmmañ beneen bi topp da ngay jëf ci say cër kon moo tax jullit boo ko xoolee rek force ba ngay xam ne kii ab jullit la ndax ngëm yàlla jàng ci xol ba benn làmmañ wa da koy wax mooy làmmañ wi ci yàlla lay tàmbale yem ci yàlla ñaar ñetteel ba mooy ay jëfam yépp kon nit ñaar rek moo ko composé wax ak jëf lislaam ne boo ma xasee gëm say wax da ngay fexe ba di ba ma di ko contrôler man lislaam nga ne waaw mu ne la say jëf yi maa ko moo tax lislaam ne boo gëmee yàlla ci sa xol ba mu wóor du stop mooy da ngay ba di ko wax nga wax ne ashhadu an laa ilaha illallah moo lay dugal waaye du ca nga yem mooy lépp looy wax da nga ci natt àndar lislaam li may wax ndax lislaam d'accord na ci nga ne waaw d'accord ci nga bàyyi jëf yi noonee kon euh, loolu la lislaam indi moo tax yàlla sunu borom bim ñu jàngalee ci alquran ñi mos am taxawaay ñëpp ci àdduna seen taxawaay daalalu ci ngëm ali sarsam ñettali na ñi nga xam ne dañoo jiitu woon di ay ndaw yoo xam ne biñ demee ba yëg ne seen pénc mi mu ngi soppeeku ñu jóg bëgg koo defar yàlla daf nañu ne lu tax ñu amoon pas pasu defar seen pénc ma mooy seen ngëm yàlla gi fees seen xol moo tax mënuñoo seetaan seenam pénc muy ashabu këf innahum fidya ndaw yu jàmbaar li tax ñu am jàmbaar mooy amanu bi rabbihim dañoo amoon iman alayhi salaam sax bi mu indee alquran daan ko jàng ba ku muy convaincre ci alxuraan la lay convaincre bi mu taxawee di ko jàng jinne yi dégg mu di ko jàng ñu ne bi al alayhi salaatu salaam jàngee ba daaneel alxuraan daf ñu ne na dañoo bàyyeekoo foofa jëm ci seen nit ña wa is sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu bañ dégg asaasam di jàng dañoo wax ne eh, li ñuy dégg nii lu garaaw la lii de monsieur dégg lu ne dégg nañ ne ansitu déglu leen ñu déglu li kii di wax falam maa xodee bi alei salatu salaam jàngee ba daaneel wallaw ilaa qawmihim dañoo wëlbati ko dem ci seen nit ña munziriina di leen waar yaa naa inna sami'na kitaaban unzila min ba'di Muusaa li ñu leen wax ah, yahdi ilal haqq wa ilaa tariiqil mustaqiim ne leen yaa qawmana yéen suñuy nit message bi ñu jot te jot leen ko mooy ajibu daai allah kaay leen wuy sa ali sa wa aminu ngeen gëm ko mooy kon jinne sax comprendre nañ ne message bi lislaam indi mooy nit balaa ngaa def dara da ngaa am ak ngëm yàlla moo tax téere fiq bi ñu njëkk a jàng bi njëkk jàng ci sunum réew muy laxdari sax bu ne alhamdulilah wasalaatu wasalaam la ñu teg mooy awwalu maa yajibu alal mukallaf li njëkk a war ci ab jullit tasxiixu imaanihi mooy gannaaw bi ñu ne gëm na yàlla mu corriger ak ngëmam vérifié waat ko daal ne gëm naa yàlla ngaw laaj sa bopp ana lan mooy gëm yàlla boo ko xamut nga xam la jikko ngëm yàlla lan moo koy ngemb boo ko xamul nga xam la jikko loolu yàlla du ci baal kenn kenn ko na ko war a xam moo tax nga dégg suñu tubaa ne awwalu maa awjabahu rahmaanu xataan ala mukallafi iman ndax ngëm yàlla li tax mu nekk sauvetage ci nit mooy boo xasee gëm yàlla dara dut la stress tey ji ñun problème yi ñuy am bari ñak gëm yalla la ndax bo demee bay ragal nit ba tax ngay dévier wala ngay wax lu la wuur ne amut wala nga diko ragal ba tax ngay dugg ci nak sur nona da fekk ngëm yalla ga amu fa ndax lo mëna bëgg bu sa ngëm foré té mat ba ngay xamné ne koy joxé yow li la ci yalla sante muy sa participation lu bo sabab lo wacc nga bo amé baxna bo amul bax ñi bëgg alal tay jii xolal ni ñu sonni mais yow jomi xëy takk say dàll dem ca tool ya loo jàpp ne war naa mën a génne dara nga ne ca baax na boo amee baax na boo amul baax na waaye boo amul nag bëgg a jàpp ne di wala xañ wala bëgg a jàpp ne nàngam ji wala bëgg a jàpp ne jël yëfi jàmbur wala triande wala wax lu dëgg moo lay may kon yow sa ngëm dafa des moo tax la yi ñu am ci jàpp ne alal dañ ko war a am force du noonu suñu tubaab nee na wa faragal mawla min arbain ajal wa xuluqin xalqin wa rizqin xul ajal yàlla nopp na ci ñeent bi ñu bindee booba kenn ñëw ñëwagul ci àdduna mooy lan ajal suñuy ab kenn ku ne fi sa dund war a yem yàlla pare na ca kon bu ñu am problème mu ñaala ay lii day guddal fan day nangam su ko defee nga nekk ci diir yow neel ci li nga ne war a nekk rek boo fi yàggee baax na boo fi yàggul baax na ndax loo fi mën a am am na ko koo fi tane am na koo xam ne yàgg gën a yàgg kon app yi suñ tubaab ne ne yàlla pare na ca te booba génn guñ suñu biir way jur bis topp mooy lan jikko ji ni ñuy mel ni yalla bëgg moy ñu baax cheytaane mën naa ñëw jëm laa yi waye kenn ku ne lu si mbaax bo koy def yalla dila la suñu tuba tubaa neen yàlla par nañ foofu beneen ba moy lan wërseug yi ali sallam nañ ko rafetal ndax ñaawal gi taxut nga am lu wëtta am kon loola yalla noppi na ci ko defé nak da nga gis ko xamné ngir néew ngëm yalla ba tax mu stressé wu bu wuté amut day am problème day japp ne samay bokk ñoo baaxut dañ ma warna dimbalé gouvernement bi nangam tek deer wallahi bu assamance don taw khalis amna ño xamne duñ am mukk xaalis loolu yalla dogal boko nango nak da bok ci li wone seen ngeum gu mat benen bu stop moy da nga gis sax ko xamne dana am khalis waye problème bi ni am moy ah ni man sama bok yi ma len topé damay jéxal de fekk deerit ki yalla jox lu ëpp sa soxla daf laa séddaleloo ñaare amul kuy am khalis di dimbalé ñam wara dimbalé di faatuwaale ak ñak waaye soo fi nekkee bëggee bëggee bëggee ba ya ba yaakaar ne li nga yor boo ci joxee day jeex te yàlla bëggul mu jeex yaa ngi ci njuumte kon stress bu metti bi ñu nekkee euh, ngëm yàlla mooñ ci mën a génne moo tax sax gis nga ko ba ci yu àdduna yi ñuy wut ay nguur ak yooyu yëpp fu mu ne ni boo koy wut léeg-léeg ngay pexe mu nekk léeg-léeg ñu sant la sacrifice boo xam ne wóor na da yóbbu sa diine waaye nga nangu ko fekk sa ngëm yàlla moo faible bu yàlla bëggee nga jot ci lu mën a xew da nga ci jot bu yàlla bëggul nga jot ci loo mën a def doo ci jot beneen bu si toppit euh, mooy daanaka ba ci wutkati xam-xam yi sax loolu lépp dafa leen dal da gis koo xam daanaka pexe yooyu doo ci dugg ngir ngir nga xam ne ngëm yàlla gooyat moo koy waral kon alquran li ñu sant mooy ñu fexe ba suñu ngëm dëgër ñuy nangu dogali yàlla yi su ko defee problème yu bari duñ ci dugg beneen bi stop mooy ngëm yàlla nag luy yokk la di wàññeeku ahlu tasawuf loolu lañ gëm dañ ne ngëm yàlla day yokk day wàññeeku ngëm yàlla la koy yokk la koy dundal ba muy am force mooy ay jëf yu baax moo tax dangay ngay seetlu ne yow boo farloo ci jàng alxuraan farlu ci yar sa làmmañ farlu ci tiye say bët di gëstu xam-xam di jaxasoo gaa yu baax yi da ngay dem ba yëg na yow sa ngëm yàlla dëgër na léegi. boo gisee ne da ngaa jublu àdduna rek nga xam ne yow xaalis daal da ngaa jàppal moom mënoo koo bañ a am amutoo bëccëg amutoo guddi doo nelaw lu ne pexe mu ne nga nangu koo def lu ne nga nangu ko nag ngir li ñuy wax naan gore xaalitu dund muy baat boo xam ne bu lislaam bañ la léeg-léeg euh, néewu ngëm yàlla mooy waral loola kon lislaam loolu la jàng jàngal beneen bi stop mooy nit koo gis jàppal ne ay jëfam ngëmam moo ko déterminé boo gisee nit muy jéem a ak mbaax di jéem a yéene nit ñi jàm di jema nek ci ndigal yi ci tere yi na nga japp ne kooku ngeumam gu foor moko ko ci lola waye ko gis mu nek safan ba noppi bëgg ko layal naan xol rek tak yegal ne ci awlay rek la nek lolu shaytan moy ne ci gannaaw shaytan moo lay xir ci lu bon ba nopi nak rafetalal la ko bu nit ñi waxe nga ne xol rek tak ka man nga sonu gatt bo le jigen bo de goor ko man ko dur lek xaysam bo waxe ngone yalla xol xol lay xol rek tak fek la nek ci xol ba ta moy ngeum nga moy fay ci ciri bu xol ba bu xol ba amee ngëm gu dëgër nit ki ak mbaax rek lay natt la ci cër yi cër yi ndax mbaax rek la ñuy jéem waaye bu amul ngëm gu dëgër cër yi duñ mën a def mukk lu baax benn bi topp mooy problème wu ngëm yàlla ni muy indi nit problème fii ci àdduna gis nga ko tey ji monde bi yëpp a ngi ci problème ñii kenn ku ne bu dee nit ñi par benn benn ñu ci problème bu dee état yi ñu ngi ci problème te lépp da ngay xam ne li ko waral mooy ngëm gu faible ndax alayhi salaatu salaam bi muy ñëw ci jamonoom te fekkoon ñëpp nekk ci problème bi mu fexee ba dindi ci ñoom lu dul ngëm yàlla sol ci ñoom leerul ngëm yàlla wax nañ ne dem nañ ba bu nit génnee azaka du xam kam koy jox ndax fekk nañ ñëpp booba woomal nañ kon alayhi salaatu salaam bi muy wax naan xarnu yëpp sama xarnu moo ci gën dañuy xam ne moom alayhi salaatu ci jamonoom la ngëm yàlla gënoon a am doole moo tax waa jamonoom ñoo gën ñu dul waa jamono mu ne sama gannaaw ñu topp ci ñun génération bi topp ci sama génération ñooy gën ñu dul ñooñu dañuy xam ne la taxoon mu di ko wax mooy ñoom seen ngëm mooy gën a for ñu si topp nga xam ne ni ñuy gën a suufee rek di gën a suuf fu ne ni ñun ñooy tane suñuy doom ñoom ñooy tane seen doom kon alei satu salaam loolu la jàngale moo tax te hadiis mu ne al mu'minu xanaa bëgg leen ma wax leen kan mooy al mu'min ñu ko ahakañ mu ne ñu al mu'min ki gëm yàlla piir mooy koo xam ne nit ñi mucc nañ yaa maanaam nit ñi mucc nañ yàlla musal na nit ñi ci moom seeni alal maanaam yàlla musal na nit ñi ci ayu moom maanaam aw ayam yàlla musal na nit ñi seeni alal ak seeni bakkan mooy du laal alali nit ci lu ne da cee am àq du laal alal nit ci lu li charia tëral ne yoonee yoon woowee aw yoon benn bi sopp mu ne jullit piir mooy koo xam ne du laal bakkanum nit te duut ne charia moo ko si jox ndigal waaye léegi gis ngeen ko bés bu set ngeen dégg diw attaqué nañ ko fee taj nañ magasin wu bee jël nañ alalam faat nañ ko lépp alayhi salaam waxoon na ko ca bu njëkk mooy bu fekkee nit ak ngëm yàlla gu foor mi ci moom du laal mukk alali nit lu ne da cee am àq du laal mukk bakkam nit lu ne sharia dakk koo digal kon yàlla sunu borom bi mu yónnee alayhi salaam ngir bëgg mu yeesalaat jamono tegaat leen ci yoon da ko jox mission fexe ba nit ñi seeni xol ngëm nekk ca su ko defee danañ fexe ba kenn ku ne da nga xam ne li war ci yow yàlla xam na ko te programme na ko bu yàgg su ko defee nag doo jéem wut say pexe yoo xam ne da jaar ci waneen yoon ngir am lu yàlla bëggut ci yow te kenn mënu ko nag ci àdduna nit mën mënta fexe ba li yàlla bëggut mu am ko mu di ko am léeg-léeg nga nekkal nit ci benn quartier wala ngeen nekkal ndoor xale wala yooyee ngeen màgg mu am lool nga néew doole lool su ko defee foo jaar rek mu yàqu fa ah diw de daa ñàkk ngor rek waaye moo ñoo ànd ba ñu nekk xale de diw de moo ne maa ko jàppale de te nit mën naa jaar ci yow sax yàlla jox ko loo xam ne yow def nga effort bu ëpp bi mu def te amoo loola su ko defee boo fekkee sa ngëm foor na am na doole da ngay xam ne nii la yàlla bëggee waaye doo wax ne comme maa gën a def effort diw kon maa ko war a ëpp rek déedéet yàlla xoolul loolu da nga gis yembar moo xam ne bind sax mënu ko waaye muy wàcce conteneur yoo xam ne kenn mënu koo lim kon da ngay xam ne ngëm gu feebal mooy waral nga jàpp ne mën ngaa defi pexe ba am lu la yàlla joxut wala man nga yàq nit ba yàlla nangu lim ko joxon jox ko moo tax dañuy wax ne ab añaan dafa biddanti ndax fa yàllay faree nit ay bañam yëguñu fa moo tax aleyhi salaatu salaam nee na nañu rafetal wutin yi ndax sabablu rek lañu yàlla sant hasbuka min tawakkulin an la tara mujree rizqika siwa rabbil wara kon loolu lañ indiwoon ñi